B, à la très fontaine, je me suis suivi, gné, Il y a longtemps que je t'aime, j'en veux que je vous Un, deux, un, deux, à la ligne. Un, deux, un, deux, à la ligne. Moi, monsieur. Voilà, chers élèves, merci. Voilà. enseignants yi problème bi nga xam ne moom la ñuy am at bu nekk dafa mel ne gouvernement yi ñun ñooy seen opposition numéro un amul benn gouvernement boo xam ne bi Sénégal nekkee Sénégal ba tey enseignants yi seen ay principe war a seen li nga xam ne mooy accords yi gouvernement ñoo respecté ko loolu amul te ñun dañ leen di xëy di jàngal guddi ak bëccëg ñun ay enseignants nañu enseignants exposés en danger lu tax enseignant exposé en danger xam nga ne craie bi nga xam nga moom ngay jël di ko bindee ci tableau bi saa yoo yëkkatee craie bi bind un wala deux am na poussière buy bàyyeekoo ci craie bi day dem directement ci bakkanu enseignant bi mu daal koy respirer su ko respirer enseignant bi ci boppam mu ngi exposé wu ci ñaari cas benn ci problème de santé ak problème de tuberculose ndax poussière ak saxaar ak li nga xam ne moom mooy yenn yenn yenn yenn yenn produits toxi yi dafay indi li nga xam ne mooy problème psychologique ak problème de cœur kon enseignant bi bu commencé enseigner à la classe de CI di fa nekk ba jóge foofu dem CE2 jóge primaire dem secondaire jóge secondaire dem terminal jóge terminal soog a dem université am na ay professeur d'université yoo xam ne ci CREI nañu jaaree primaire remonté nga nekk ak CREI pendant bi nga amee vingt cinq ans nekk enseignant ba am cinquante cinq ans nekk enseignant yaa ngi exposé ci benn craie boo xam ne ci digganteeg miir bu ñuul bi ak craie bi ngay noyyi ndox mi nga xam ne moom ngay fompee tooyaay boobu ngay noyyi muy dugg sa cerveau di yàq sa xol loolu ministre bi ci boppam daf ko war tey ñaar bii dafa war a nekk koo xam ne munoo former président de la république yow yaa tax président nekk président xam-xam bi mu am ak éducation bi mu am ak ni nga ko jàngalee yar ko yaru classe bokkul ak yaru kër ndax mën na la yar sa kër nga nekk fa loo xam ne yenul maana sama téléphone a ngay sonné allo allo madame waaw rek leen loolu rek amul problème nee naa la ñu ngi préparer yeneen cité des enseignants mu ñun rek nel borom kër gi mu may ñëw maa ngi jàngale yow tamit nga may woo naan may borom kër gi nee na lii ah non tamit waaw sóoral loolu rek sóoral sóoral ah ok. vous voyez da ngay jàngale ci biir jàng bi ñu woo la téléphone ne la kër gi nga dëkk ñu ngi lay laaj arrière bi nga amoon weer bu dee bi si c'est des enseignants dafa war a am chaque projet président bu ñëw da ko war a taxal parce que enseignants yi ñooy tax président bi xam li nga xam ne mooy éthique ak déontologie def ci moom xam-xam ak bëgg jàng ak civisme kon kooku ki la jàngal ba nga tekki yow mi nga xam ne moo la jàngal ba nga tekki allo. alo waaw waaw nañ maire bi tamit xam nga ñun à part enseignant bi amul leen lu ñuy def tamit man barke démb maa ngi yónnee dëkk ba ñoom tamit courant yi jël di yónnee tamit non non non non. yéen a ngi dégg maa ngi jàngale ñu ngi may woo di mu wax ay problème li ma war a def ci xelu xale yi islaam yi dégg moment bi man stressé naa lu tax may stressé parce que sama problème bu réglé woon sama kër kenn du ma woo di ma yàqal sama liggéey am na problème yoo xam ne fi ngay liggéey nañ lay woo intervenir ko doo mun a dagg liggéey bi def enseignant du jaay tàndarma du jaay li nga xam ne mooy beñe li mu xam mooy xam-xam lay jàngale def ko ci nit ki ba mu am xam-xam kooku ëlbatu ko am alal romb ko ci mbedd bi di ko ko monsieur Ndiaye yaa ma doon dóor wala monsieur Ndiaye yaa ma jàngal yem na ci kon ñun a tekki dañu war a nekk ñoo xam ne ay oh allo oh. allo waaw waaw bàyyi ma jàngale fii de waaw maa ngi ñëw waaw damay jàngale fii après dagg ñëw foofu on est obligé di wàññi suñu heure dem di dóor marto ay journaliers ci école privée yi soo ko deful doo am li nga xam ne moom mooy fay bi nga war a compléter sa biir kër li lay bett enseignant salaire la am dañuy wax faral di wax sax ne enseignant bi ci boppam day jël salaire am di ko bind cent franc café fukki dërëmu nettitu juróomi dërëmu keccax lu tax parce que xam na li muy am da koy calculer enseignant bi war na mën a moom ci boppam bu gisee

Afrique les on a formé des enseignants yoo xam ne ñu ngi Mali on a formé des enseignants yoo xam ne ñu ngi Guinée-Bissau on a formé des enseignants yoo xam ne ñu ngi ci Cap-Vert on a formé des enseignants en Mauritanie on a formé des enseignants nous réclamons les présidents yi nga xam ne ñooy toog bu ñu ñëwee du ñu respecté accord yu ñu wax duñ ko respecté naxanteeg ñun ba kañ loolu ci boppam moo fiy dakk moo tax ma ne moi monsieur vous les élèves respectez l'enseignement respectez vos supérieurs respectez les enseignants parce que enseignant bi moo def xam-xam ci yow yow ki la def xam-xam ba nga xam ba toog tey jàkkaarloo moom di ko xeex kon ñàkk xam moo tax nga xeex kooku waaye xam-xam ci boppam yàlla nee na ci boppam boo ko jëlee def ko ci doomu aadama ba mu xam ba am ba xam nu ñuy xamalee ba am wax dëgg yàlla boo gëstoo war koo sutural ci li nga xam ne moom lay bëgg li ñuy laaj c'est très simple condition de vie la ñuy laaj donc chaque instant ñoom ñoo ñuy provoqué kon dama ne moi monsieur moi monsieur jàngal ma moi monsieur monsieur monsieur moi monsieur monsieur jàngal ma allez-y allez-y 1 2 3 4 intelligent. Mais un, deux, trois, quatre. Mais cinq, six. Mais sept, huit. Mais neuf, dix. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Mais dix. Mais un, deux, trois, quatre, cinq. Mais un, deux, trois, quatre. À la carte de l'antenne, je m'en suis baigné. Il y a longtemps que je t'aime, jamais que je peux vous